المعرف المض- منادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد منادى su fekkee ni alam la tey mufrad nañu ko daan rafaaye màndarga rafaama la mu daan doon ci lañu koy binaal kooku nag mooy dàmm wala alif wala waaw su fekkee ni mufrad la te mufrad fii kat liñ ci jublu mooy loo xam ne du mu daaf du sibhu mu daaf dong tes ni ak jamo lépp ci mufrad la dugg moo tax am ci fii mufrad bu ñuy binaal ci dàmm ni ki zaydun am mufrad bu ñuy binaal ci alif ni ki zaydaani yaa zaydaani ak mufrad bu ñuy binaal ci waaw ni ki yaa zayduun fi mufrad file kon noonu la bokkut ak mu mufradum baabul i'raab de ba mu'rabum baabul i'raab mooy lu xilaafu tasniya wal jam mufradum bii bunt nag mooy lu dul mudaaf du sibu mudaaf mufrad ci idaafa nag mooy lu dul jumla rek bismillah wabni binaalal almuarraf lu ñu maarifaal boo xamee ni muarraf la wax moo xam bil alamiya la ni ki yaa zaydu wala bil qasdi wa taayin ni ki yaa rajulu almunaada almufrad na nga ko binaal ala alladi ca liraab melaw liraab wa nga xam ne mel qad uhida miinoon nañu ko fi rafihi ci rafaam loola nag na nga ko ca binaal dàmm wala alif wala waaw wan wi yéeneel maanaam nattalool indimaama ma dàmmuk la nga xam ne banaw dañ ko binaaloon qabla nidaa i la jëkk ba ñu koy woo ni ki siiba way hi dafa àndoon ak binaal kon soo ko dee woo yaa siiba way rek ngay wax waaye yaa nga fa nattale nag dàmm gi nga xam ne moom la ñu waroon a dàmm mufradul alam su boobaa ci la cay topp walu yu jëraa nañu ko dawal ci taabi am mu jëraa bi binaa in dawu waayu dawalu kaayu borom binaal juddi da gu ñu beesal ni nga xam ne boo noon yaa saydu dégg nga la cay topp ci naatam wala ni ki nga ni at tawilu ndéem dafa yor al wala tawila wala dafa laaf yaa zaydu saaxiba amrin ci naatam boobu bu dee badarit bu dee leneen noonu nee na kon it noonu la ñuy defal nga ni yaa siiba wayhi yaa nga fa nattale dam alfaadilu ngir xool dàmm googule nga xam ne binaal la waaye niroo naag melo rafaa nga daal di ca tofal alfaadilu muraatan li lafdi al muqaddar te mooy li dammati al muqaddar yaa zaydu alfaadilu yaa sibawayhi alfaadilu mbala wala alfaadila ci yooyu yaar ndaxte munaadaa it doonte binaal nañu ko ci dàmmit barabu nasab la ne ndax moom ci maanaam mafool bihi la ne ndax yaa bi dafa remplacé ad'u xam ne da nga ni damay woo fulaanan looloo tax ak nu mu mënti def bu ñu ko nasabu lafzan ñu nasab nañu ko maxallan walaw buni ala ala shay wal mufrada al mankura wal mudaafa wa shibhahum sib aadiman xilaafa wansib nasabal yii al mufrad al mankur bu ñu nakiraal maanaam mu nakkar ak mudaaf ni ki xulaama zaydin mufradu man munakkar nag moo mel ni ki yaa rajulan boo ko dee woo te fekk janloowu laag moom wa shibhahoog lu niroog mudaaf ni ki wa huwa mattasala bihi shay'un min tamaami maanaahu faa'ilan kaana ni ki boo nee yaa xamidan fi'luhu wala maf'ulan ni ki yaa raakiban jamalan wala sax leneen lu ko guddal ni ki jaar ak majruur ju ca aju ni ki yaa xayran min zaydin wala sax maatuuf mu ca jokk naxu yaa salaasatan wa salaasina fi man ismuhu kazalik bu fekkoon loolu da nga koo tuddee nit di ko wa looy wax yaa salaasatan wa salaasina ndax atafu cosaan gi woon moo guddal tur wi kon nag lépp loo xam ne lëf da ca jokk lu ko guddal day niroog mu daaf ci guddaay ba tax na dañ koy nasab lafzan moo tax mu ni wansib nasabal al mufrada al mankura mu ñu nakiraal ni ki yaa rajulan ka qawlil waaidi yaa rajulan wala yaa gaafilan wal mawtu yatlubuhu wala gumba guy wax naan yaa rajulan xuz bi yadi wal mudaafa ni ki yaa gulaama zaydin wa shibhahu yaa taalian jabala insibhu aadiman mbir mu nga di aji ñàkk xilaafan wuute bu kenn di wuuteeg yow ci loolu ñëpp ci d'accord wa naxwu zaydin dumma waftaxanna min naxwi azaydu bna saidin laa tahin wala azayda bna saidin lu mel ni kii alam boo xam ne da nga ca naatal ibnu ibnu baat laaf alam kooku yaar dagan na ca ibnu la ñu wax de waxuñu bint ibnu mbaa ibnatu de yooyu yaar moom mën na nekk waaye bint moom dañoo kasra ak baaxam kenn sukkoonu ko te kon day daal di diis sukkoon nag woyofam dafay mel na daalu zeydu ak noonu ibna te dafa mel ni kii ndax dara xawul dox seen diggante li anna al xaajisa huna sukkoonun wa huwa xayru xasin nga ni bépp loo xam ne da nga woo alam ibnu di ca naat te ibnu jaat laaf alam loolooy xadd bi waxunu su fekkee ni naat ba du ibnu leneen la wala bu dee ibnoot laaful alam xëy na nakira la laaf ku boobaa kon danga naan yaa zaydu dégg nga ibnu xulaamin ibnu nangam nga xam ni na laafut alam wala ni ki yaa zaydu bnu axiina yaa zaydu bna axiina kooku nasab gi rek moo ciy dagan waaye su laafee alam nag mën nga ni yaa zaydu yaa zaydu yaa zaydu bnu said wala yaa zayda bna said amma damm gi la ko waraloon a ko waral mufradu alam la amma fata gi nag maana itbaa li fatxati nuun ci ibna yaa zayd ibna said nga binaal ko ci fata boobu ngir tafal ko ci fataag ibna ndax itbaa dana nekk min lil lima lima qablu wala lima baadu lu ci ne laa tahin tatmim la bul doyadi والضم إن لم يلل ابن علما أو يلل ابن علم قد حتم والضم ضم دال زيد مثلا أقلو ملني موم قد حتم ورال نانيكو إن لم يلل ستوبول تي لبن جي ستوبول تي علم ndax nekki tay danga ni yaa xulaamu dégg nga ibna saidin kon danga koy dàmm doone yaa xulaam ibna said ndaxte munaadaami ci boppam dafa dul alam ibnu toppul ci alam aw yali libna alamun wala su fekkee ne lam yali toppul alamun alam libna libna laaful alam leneen ni ki yaa zayda bna axiin yaa zaydu bna axiina kon yaa zaydu war na moom la ni wa dammu xotima waraleef na ko in lam yali ndeem toppul ci libnu bi toppul ci alaman aw yali wala toppul alamun alam al ibna laafut alam yooyu yaar yaa zaydu rek nga fay wax su su dee alam nag ni nu wax laaf alam ni nu wax kon nag nga ni yaa zayd bna saidin wala yaa zayd bna said wadmum awin sib mattiraaran nuwina wan sib nasabal bu la neexe dàmmal kon wan wadmum dàmmal awin sib wala nasabal maa alam ba nga xam ne nu wina dañu ko tanwin ibtiraaran ngir lor way te yelloowul woon ku ko tanwin xëy na maa laa yansarif la woon min maa ci lépp loo xam ni istixaaqu istixqaaqu dàmmin yelloo gu mu yelloon ñu dàmm ko bu yina biraleefoon na ko léegi lor way tax yaa ngi koy tanwin nee na kon suya boo nga dàmm ko wala nga kila ko wala nga nasab ko damm gi binaal nasab gi nag moom li'raab la niki salaamullahi yaa matarun alayha wa laysa alayka yaa mataru salaam matar turu waay la turu góor la fii salaamullahi yaa matarun alayha loru way nag dikk na nga nasab ko bu la neexee ci wàllu nasab geet mën na nekk riwaaya nañ ci bayt darabat darabat sadraha wa qaalat darabat sadraha ilayya wa qaalat yaa cadiyan laqad waqatka al awaaqi cadiy alamu rajulin nga ni yaa cadiyan loru waye tax mu dem ba mu koy tanwin nda yaa cadiyu mooy qiyaas waaye ba mu koy tanwin nag mu faf ko nasab rek ndax tanwin geet guddal na baat bi ndax waru ko woon yaa cadiyu rek la ñu waroon wa bitiraarin xussa jamcu yaa wa al illaa maca allahi wa maxkiyi aljumal nee na xarfu nidaa te mooy yaa boole ko ak def ko ci baat bu am al kenn du ko boole du dëgg kenn du ni yar rajulu duñu ko wax kon nag naadir la waxu way bilay lor way ko waral فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تكسبانا شرا فيا الغلامان ينيار خلالي وقلنا له رويتك يا غلامان لن من فيا الغلامان اللذان فرا ينيد خاني ينا داو جاخيخ با إياكما نجين واتاندكو دال أن تكسبانا شرا نجين دينو يوبيو هاي تخني دينو جاكو بمو أمو illaa ma allahi lu dul su ànd ak baatu allah kooku al alif ak laamam teewut muy ya ya allahu ya allahu ya allahu mbaari allahu yooyu yaar loo ci wax baax na ya allahu mbaa yallaahu taala wa maxkiyi jumal ak lu ñu nettali ay jumla maanaam su fekkoon law qudira anna al jumla jumlata al ismiyata jucilat alaman kal muntaliqu zaydun nga tudde ko benn waay law qudira dalika walam yusma wa qad qaasahu naxwiya wa innama sumica aywa aljumla alficliya yujcal alaman fashaaba qarnaaha wa baraqa naxruhu wa taabata sharan waaye mithlu almuntaliq zaydun lam yusma qat wa qad qaasahu naxwiyun ñoom ñoo ko waxal nattaleel ni almuntaliqu zaydun soo ko tudde woon nit soo koy woo man nga ni kon looy wax xanaa yàll muntaliqu zaydu bàyyi caal wala yàllaahu loolu rek amaa lu mel ni yàl xulaamaani xam nga waxoon nañu daruway la daruratu shay wala aktaru allahumma bittaawidi wa shadda yàllaahumma fi qaridi ah yàllaahu nag bare na lool waaye lu ko gën bare ñu dindi yaa gi remplacer ko miim mu ñu sàdda ci mucc ni ki allahumma looloo bare allahumma moo gën a bare yàllaahu te lu ci ne nag bare na wala aksaru lépp mooy allahumma bi taawidi ci wecc mi mu ñu sàdda nga wecc ko yaawu ni daaba kenn du leen boole wa shadda génn na qiyaas nag boole leen ngir loru way yàllaahumma fi qaridin ay fi shi'rin ci way fi qawlihi inni ida ma xadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma faslun taabica didami almudaafi duuna al alzimhu nasban ka azaydu zalxiyal li topp ci munaada mu ñu binaal ci dàmm te la ca topp loola dañu ko laaf te yorul al niki tey nga ni yaa xulaamu ibna amrin yaa xulaamu bna amrin kon danga koy nasab moom im na ndax mu daaf la te yorul al mu des bu fekkoon ne du mu daaf ni ki danga ni yaa xulaamu bishru walla nga xam ni dégg nga dafa yor al laaf du dëgg bu boobaa kon yaari yëf dagan ca binaal ci dàmm wala nasab dëgg nga waaye taabi bi nga xam ne mu daaf la te yorul al ni ki ibna amrin alzimhu taqale ko nasban faw misaalam azaydu yow zayd hamsa nidaa ak hamsa hamsa xarfu nidaa xam a zaydu yow zayd zal xiyali kadi boroomi pexe za yaa ngi ko nasabe alif maanaam saaxiba kooku moom nasab rekk ci wa ma siwa hunsib wa ma siwa hurfa awinsib nusxa bi dafa jël irfa wa ma siwa hurfa awinsib wajcalaa ka mustaqillin nasaqan wa badala taabic nag dañu waxoon taabic rek mën nay naat misaaloon nanu ko ci naat waaye taabic mën nay badal mën nay naat mën nay atfu bay mën nay tawkid wansib nasabal ay warfa rafaal awinsib wala nga nasab maa si waahu la dul moom mooy la nga xam ne laaful dara ni ki ba nga ne yaa xulaamu bishru wala bishran nasab boo ne bishran da ngaa nasab boo ne bishru da ngaa binaal ci daal wala nga wa maa si waahun sib wala rafa ci yaari misaal yooyu ma wax rafa gi kat binaal ci dàmm rek la ci jub nde dooni bishrun yaa xulaamu bishru ni nga def xulaam wala bishran boo nasabe waaye mu ni rafaal mbaa nga nasab waj al loolu nag bu fekkee naat wala muy badal mbaa tawkiit maan wala tawkiit naat mbaa tawkiit noonu la du da waj al defal at nata nasaqan lu ñu ataf at fu nasaq bil xarf wala badal taabic bi bu fekkee at fu nasaq la wala badal kooku def ko ka mustaqillin bin nidaa nang ko daan def mu beroo nidaa oom moo xam mufradum alam la wala nakira maqsuuda la wala mudaaf la nang ko daan def kon nga koy koy def su fekkee li nga tofal ci maa siwaahu la nga xam ne doonul lu laaf te ñàkk al kon bon mooy loo xam ni ah dafa yor al maanaam taabi ba dafa yor al wa te laafut wala mu yor al te laaf maanaam yorul dara la wala mu yor al te laaf kon def ko de nasaq ak badal def ko ka mustaqil su fekkoon ni fu ñu ko war a dàmme la dàmm ko du dëgg nga ni yaa xulaamu wa bishru ndax bu doon woo bishroot mustaqilan da nga koy binaal ci dàmm aywa su fekkee ni mu daaf la soo ko doon woo fa àll ba da nga ko naan yaa xulaamu saaxiba amrin kon soo ko atafeet nil yaa xulaamu wa saaxiba amrin su dee badalit nga ni yaa xulaamu saaxiba amrin mooy loolu moom la ni waj al defal nasaqan lu ñu ataf atafu nasaq wa badalan ak lu ñu def badal yaari taabi yooyu moom def leen ka mustaqillin amma bu fekkee ne du yooyu yaar naat la woon wala tawkiid la woon dégg nga wala atfu bayaan la woon kooku te itam dafa def mu daaf te yorul al moom la jëkk a wax kon yooyu in sib awir fa loo ca def baax wa in wa in wa in yakun masxuuba almaanu siqaa fa fiihi wajhaani wa rafun yuntaqa nu dikk nag li nga xam ni mooy li ñu ataf at fu nasab su fekkee masxuubu al li ñu ci doon wax dégg nga ni ko def ko na mustaqil mooy dafa yorul al amaa wa in yakun bu nekkee maanu siqa la ñu ataf at fu nasab masxuuba al doon lu yor al dégg nga niki danga ni yaa zaydu alfaadilu mu di ci wal lu ñu ataf sax atafu na sax tey ci la nu ne ndax naat bi moom passé nanu lu ñu ataf atafu na sax bu fekkee dafa yor al niki yaa zaydu walfaadilu dégg nga fa fiihi nekk na ca wajhaani ñaari anam nasabak rafa waaye wa rafun ak rafa yuntaqaa dañu koy tànn niki yaa zaydu wal xulaamu dafa yor am bi dàmmil xulaam wala yaa zaydu wal xulaama ak nata rafaa gee gën nag wa ayuha masxuuba al baadu sifa yalzamu birrafi lada zi maarifa wa ayuha ayu ci lisim yi ñuy woola yi nga xam ne day taxoo ni daa ayuha dégg nga yalzamu dana war dana taqoo masxuuba al lu ñu booleeg al si baadu muy dikk ci gannaawam sifatan di sifa ñeel ko bi rafi ànd ak rafa te dañ koy rafa ayuha daal nee na dana war sifa su yor al dégg nga nekk ci gannaawam te ñu di ko rafa ni ki yaa ayuhal yaa ayuha shaacir yaa ayuha saaxiru yaa ayuha alqaaim yaa ayuha naasu day yor al te it bu dee jaami dit sifa lañ koy def fi lañ ko tuddee rek yaa ayuha naasu naasu dañu naan sifas ayuha la li mu doon doon jaami moom la ni wa ayuha yalzamu day taqoo masxuuba al lu yor al sifa tan muy sifa baadu mbir muy nekk ci gannaawam bi raf mbir muy ànd ak rafa kooku yetti ju yetti xaal lañ baadu ji ak sifa tan ak bi raf yëpp xaal la ci masxuuba al loolu dana war la daadil maarifati fi ka nga xam ni fa ka nga xam ni moo xam waxinu arab wa ayu haada ayuha alladi warad nee na wa warada dikk na ci waxu arab nag loo xam ne taxu koo baree noonu ayu haa ayu haada yaa dëgg ayu haada yow kile yaa ayu haada wala ayuha alladi yaa ayuha alladi nuzila alayhi dikru innaka la majnun moom arabiya bu rafet la dégg nga ko ci alquran yaa ayuha alladi ladi doon sifas naatu ayu wala ismu lisaara doon naatam yaa ayu haada alaa ayu haada zaajiri axdura alwaga wa an ashhada ladati hal anta muxlidi ci way tarafatu bnu alabd ayu haada la wax yaa ayuha alladi dikk ci alquran ah kon nag yooyu xam nga arabiya bu pire la wa wa wa wasfu ayin naatal baatu ayi ba nga koy woo bi si waa haada ci lu dul liin wax kooku yu raddu danañ ko dellu li annahu lam yarid fi l arabiya du dëgg wasafi ayi lu dul loolu li sim ci yor al wala mi ismu mawsul wala ismu lishaara yooyu la ñuy wasafi ayi ci tangi ni daaka wa wasfuhu bi gayri hadihi thalathati yuraddu arabiyatan wa dhu isharatin ka ayin fi sifa in kaana tarkuha yufiitu lmaarif wa dhu isharatin boroom ishara ismul ishara buñ ko dee woo ka ayin moog ayooyam fi sifati ci sifa in kaana bu fekkee nekk na tarkuha bàyyi sifa ba yufiitu di rawal almaarifata xam nga soo ne yaa haada rek kenn du ko xam nga xam ne boo andiwul sifa bi duñu ko xam nga ni yaa haada alqaa'imu yow jile aji taxaw dëgg ismu ishaara mooy haada soo ko dee woo moog ayoo yam ci sifa lisim ju ñu bu yore naat bu yor alba nga def ko wala yaa haada alladi qaama yaa haada alqaa'imu ka ayin la in kaana ndem nekk na tarkuha bàyyi sifa ba yufiitul maarifa di rawa di rawal xam nga kenn dootu ko xam amma bu fekkee ne nag ñàkk sifa ga bàyyi sifa ga du teeñu xam ko ni ki dafa da nga ko joxañ ba ñu gis ko ni ko yaa haada yow kii xam nañu ki ngay wax wala nga teg ca sa loxo kooku kon sooy ba bañ a indi sifa ga su dul loolu nag moog ay yu ñooyam ci sifa nga ni yaa haada alqaa'imu andi lisim ju yor al te ñu rafaa ko wala yaa haada alladi noonu ngay wax fi naxwi sacdu sacd fi naxwi sacdu sacda lawsi yantasib thaanin wa damma waftax awalan tusib waftax awalan bi naqli fatxi lxamsati ila sukuni lxaai qabla mu ni yantasibu dana nasabu thaanin lisimi ñaareel fi naxwi qawlihim fi naxwi qawli shaacir ayaa sacdu sacda allawsi kun anta naasiran wa yaa sacdu sacda alxasrajiina alxataarifi ñaari kilifa ci lansaar sacdu bnu sacdu bnu cubaadata sayidu alxasraj ak sacdu ma ca def di kilifa ak saabit maanaam mooy ah di ah, kilifa ak lawus Hmm, ñaari kilifa yooyu lay wax noonu waykat bi di boole ni leen na ngeen dimbali yonent bi bu baax a baax yaa saadu a yaa saadu saadal lawsi kun anta naasiran wa yaa saadu saadal xasrajiina alxataadifi ko léegi saadu bu ñaareel bi daal dañu koy nasab ndax dafa laaf bu jëkk bi nag mën nga ni yaa yaa saadu saadal lawsi waaye nga ni yaa saada saada laws waaw yaa saada moom lu tax ñu mën koo def noonu te saada mi ci topp niroowul ak yaa saada ibn said du ibnu bulaaf kon dafa mel ni ñaari saadu yi dañu leen tarkiib woon tarkiibu xamsata achara rek la jëkk yaa saadu saada yaa saada saada laws déedéet du tarkiibu xamsata achara maanaam bi taqdiril idaafi li mithli ma yudaafu thani ilayhi dafa mel ni da nga doon yaa saada law si saada law si mu mel na ba nga dindee mu daaf mu jëkk ma bàyyi nga fa melaw ñàkk ten win gawoon ci ba muy laaf loolu moo tax du tarki bu xam sata achara loolu danu jum waya kon iftax mu ni kon in yantasibu saanin wa dumma dammal awalan bu jëkk waftax wala nga fata awalan bu jëkk yaa saadu yaa saada boo ko defee ci yooyu yaar loo ci def tusib nga jot sawab
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بنوي جانغ منادى من يلافل ياء متكلم يم لغة موم موشي داغان موم لنشي دان جفندكو موم لن وجعل منادا صح إن يضاف ليا كعبد عبدي abda abda abdiya jox na ci juróomi luga mën nga ni yaa abdi doyloo kasra bàyyi yaaw mutakallim waaye nag nga xam ni yaa abdi moo doon cosaan mbaa yaa abdiya yaaw mutakallim léegi nag mën nga xasaf ko doyloo kasra nga ni abdi wala nga bàyyi ko fa ci cosaan musu ko ni abdi yaa abdi wala nga soppi kasra ga fatha bu ko defee yaaga soppiku alif gannaaw ga nga xasaf ko nga ne ab yaa abda wala nga ba fa alif ga gannaaw ba nga soppee yaaga alif ni yaa abda ni ki yaa ajaba wala nga bàyyi ko ci fataab yaaga mu ànd ak nga ni yaa abdiya loxo bu wér la ndee yaa abda lu ni mel moo boo ko seetee yaa xasrata ala ma farrattu fi jambillahi nga xam ne benn la su ko defee nag wa fatxun aw kasrun wa xadfu lyastamar wa xadfu lyastamar fii yabna umma yabna amma la mafar su fekkee ne nag munaadaa mi dafa laaful yaaw mutakallim xanaa laaf lu laaf yaawul mutakallim te muy baatu ummu ak amma nga ni yabna umma wala yabna amma bu la neexee nee na fata yaaga maanaam fata mujj xagaf yaaga ni yeb na umma wala nga kasra ko ni yeb na ummi kasra gi nag nee moo gën a ti yeb na umma dikk na ci suratu taaha ah ni la am naa ba ca laraaf moom dadul ni daaw inna bna umma mu ni nu mu ko waxee